man may député Macky Sall ma kay loolu li ma ci wax lu leer la xam nga man nit ñi ci weerante ak man daal rek daf ma ci xaw a jàpp daal parce que xam nga nit su fekkee xam nga li xew ci réew mi dëgg dëgg dëgg dëgg bu la nit waxee loo xam ne loi moo ko def war nga koo mën a gëm bu nekkee ne am nga xam-xam parce que may député Macky Sall Macky Sall mooy secrétaire général bu Benno Bokk Yaakaar moom moo ko jiite bu ñuy def liste liste député yi kenn ku nekk sa dossier yi mag nga koy jox moom mooy daay investiture mooy def moyen ñu dem élection gagné su ñu demee élection gañe li ñuy wax nan la ñuy wax ni Macky man na yor réew mi Macky ku baax la nangam nangam woteel leen ko ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi wax seen i leader ñun ñu dem élection gañe léegi Macky nekk président de la République ñun ñu nekk ay député nekk fii assemblée te dara mënut ñor ci réew mi lu dul ne assemblée moo ko wote assemblée mooy amal lépp léegi nag Macky nekk fii ak i xalaatam pour luy jëmale réew mi ëllëg ñun ñu nekk fii assemblée di ko xaar. ñu indil ñu dossier ñu ne duñ ko wate loolu ko am xel waroo ko xalaat parce que ñun dañ ko faloon pour defar réew mi fal nañ ko léegi am na xalaatu defar réew mais xalaat boobu ñun la ko indil ñu jàllale ko mais xalaat boobu bu ko indee ñun ñoo koy jàllale kon su fekkee ne tamit député toujours ngeen gis ku ràlli def transhumance mais mosuleen leen a bu def transhumance parce que député bu nekk xam nga ne tey boo jogee APR dem PDS tey moom da ngay ñàkk sa député tey tey tey bu ma ne woon bàyyi naa Macky maa nga ci Ablaye Wade suba dootuma nekk député moo tax duñ daal duñ dem duñ dem fenn kon kay su ma ne député Macky Sall laa loolu nit ñi war nañ ko mën a gëm su ma ne député population bi laa soo ne député population bi yëpp nga nekkal député ndax ñoom ñoo lay fal député lu ñuy nommer nit député dafay nekk list ci départemental ñu xëccoo ko wote muy juróom-ñaari list wala juróom-ñetti liste benn liste gagné ña ca ñi ci des perte ñooñu gagné ñoo ñëw assemblée kon ñoom mayuñ leen ko loolu mooy seen diplôme ma yaakaar ne loo néew néew xam-xam bu la nit waxee loolu bu fekkee am nga xam-xam war nga koo mën a xam man daf ma jaaxal waaw parce que bu ma ne député Macky Sall laa defe naa loolu nit ku am xel waroo cee teg baat waaw. waaw parce que Nioro li ma mun a wax lépp baax na laa mën a wax lépp nag du baax wante Nioro ñëpp d'accord nañ ne li am Nioro 60 ba léegi mosu faa am ñëpp Macky Sall moo leen koy indil ba ñëpp di ko wateel en cent pour cent kon mun naa wax ne lépp am na fa ndax ay tali amu fa mu ngi fa fees dell ay lamp amu fa woon fees na fa dell tineel yi bu tawoon jotoon dañuy am ñu gaañu la wala ñu daanu la wala seen kër yi daanu defar na dëkk ba ba mu doy presque quarante milliards et quelque ci département Nioro mais ñu kenn ëppalewu leen ci nguuru Macky Sall kon buñ ne foofu am na mën naa wax ne ñooro daj na euh, toujours dañ koy bëgg feek ñu ngi dund ndax bu ñu neexoon bu ñu neexoon Nioro mel ni Paris mais nag dafa am loo xam ne lii tamit nit ki li nga bëgg du looy am mais nag boo amee lu telloog la nga xam ne sa moroom yu bëri amuñu ko war ngaa mën a sant ne am nga kon ñun la am buñ ku ñu dolli ba déwén du mos a jeex ñu jël waaye nag ku ñu laaj tamit dañ naan Sénégal nguuru Macky Sall gi ñoo ci gagné ñoo ci ëppale. président Moustapha Niass suma lépp la parce que président Moustapha Niass avant assemblée suma kilifa la suma taaw bu góor Moustapha Niass laa ko tuddee. Moustapha Niass fi ma dëkk moo ma fa jiitu fuuf mag ma fuuf dina jaay ci man di mag ci man dégg nga yàlla jox ko daraja ba mu juddoo ba tey maa ngi Moustapha Niass benn lañ comme li ngeen di wax fan yii rek mburoog suukar <coughs> nit ñi réew mi tontu lañ manut dañoo mun la wax lañ man mais tontu lañ manut parce que li ma gën a naqari ñaari yëf mooy <coughs> nawet bi mbay mi ak mbënn mi parce que ñi ciy wax yëpp waxeewuñ sax seen sago parce que dafa mel ni dëkkuñu Sénégal bu dee ci ñi dugg ci gaal yi di dem di des ci biir gaal gi loolu xanaa fi mu ne la xew man tu toujours dama leen wax ne man 78 laa dem Paris fanweeri junne laa doon fay dañ daan njëkk Sénégal yi dañ daan njëkk a dem Abidjan moom lañ xamoon mu am xaalis bu ñu amee 6 mois ñëw Sénégal indi xaay bu dul jeex di ay xale yu góor léegi ba ñu wëlbatiku di jaaree Abidjan di dem Paris bu ñu ñëw di indi ay oto boo demee Afrique yëpp tey bopp nit réewu nit ku ñuul soo demee France di nga taseeg ñoom foofa ñuy moodu moodu booba du tey 82 83 84 ba léegi nit ñi dañuy dem Paris di ñëw kenn mënu ko fee jëlee te loolu nit ñi xam nañ ko pour lan fi mu ne ñu bëgg a jël loolu def ko arjumaan naan xale yi amuñ luñ liggéey joxuñ leen liggéey moo tax ñuy dem Paris xale yi dañoo fekk xale yi di dem Paris fuuf bu yàgg ba léegi sëñ Fallou daan na wax ne toog leen ci réew mi ngeen liggéey du tey parce que tey ku fii dem Paris xale bu tuuti sa morom moo lay lebal bi Sandaga te bu ngeen ñib see xaaye boo indi xale bu tuuti comme yow moo la koy wecci man bi may tabax ay xale yu am bac ñoo ma doon muulal feet yi vacances yi su ngoon jotee ma fay leen ñu dem yóbbu ko seen kër kon ñoo ñooñu bëgg nañoo liggéey am nañu xale yu nekk ci àll bi di bay am nañu xale yu nekk ci àll bi di sàkket am na ñoo xam ne ñu ngi ci maçon yi am na ñoo xam ñu ngi def leneen ak leneen xale ñu ngi liggéey bu baax mais bu fekkee ne yow dangaa nag wala liggéey toog bëgg a tedd ñu ne xale bi joxuñ ko liggéey liggéey kan moo ko jox ne liggéey moo ko moo koy utali boppam nekku ne dem bureau rek moo fi nekk liggéey nguur gi nekkewu fi pour mu jox ñëpp liggéey nit ñi dañuy liggéey di ñëw di fay nguur gi lemp mais nguur gi nekku fi pour jox nit ñi liggéey dafa am ñu nguur gi di dimbale mais sartowut ak Sénégal ne képp ku fi juddoo maa lay jox liggéey nguur gi sartowut kook Sénégal te nit ñi duñ wax dëgg nguur gi am na loo xam ne du ko ñemee wax nit ñi ngir bëgg a falu nit ñi am na loo xam ne lu leen neex la ñuy wax te teguñ ko fen mais nguur mais nguur amul lu mu fi tegu lu du liggéey xale yi ndax mu ngi jël xale yi fonction publique mu ngi leen di jël fu ne boo demee ci bureau yi foo dem fekk fa xale yi lan bëgg foo dem fekk fa ay xale yéen ay xale ngeen yéen a ngi liggéey lan ngeen bëgg lan ngeen bëgg foo dem fekk fa xale foo fekk mag fekk nga fa xale wala xale ñoo fa mais mais mais nguur gi waru leen koo jox da ngeen ko war a wut ni ngeen doxee ba am liggéey noonu la seen morom yi war doxee ba am liggéey waaw parce que yéen yéen a uti seen liggéey da ngeen a jàng ut seen liggéey di liggéey mais ñoom tamit dañoo war a def ni yen waaw loolu moo fi am dañ dut wax dëgg xam nga ni su fekkee ñemeoo wax dëgg da am problème waaw am na solo parce que ñiy wax ñiy wax ci mband mi ñoom ñiy wax fii yëpp nekkoon nañ fi ay ministre nekk nañ fi ay député di ay président commission nekk nañ fi ay député di président groupe parlementaire nekk nañ fi député simple nekk nañ fi ministre ñoom ñooñu ñëpp di wax seen doom yi ba ñu faloo kenn ku nekk da ngaa jëndal sa doom utal sa doom passeport diplomate jox ko mu dem Paris ñoom ñëpp seen doom yaa nga France ah ba pare ñu ñëw toog fi di wax ne nit dem France ana seen doom yi képp ku fi jël micro ci assemblée bi wax sa doom yi yaa leen yóbbu France du tey ah, ba fi mu nekk ñu wëlbati ko nag di wax doomi jàmbur yi kon nga xam ne loolu tooñ la ah ñii dee ci yoon week ñii dee ci mbedd meeg ñii dee ci tali yi yàlla moo yor kenn ku nekk fa nga war a dee da nga fay dee yàllaa xiir ñii war a des ci ndox mi ñii war a des ci géej gi ñii war a des ci avion yi nañ dem uti luñ liggéey te bàyyi wax ji loolu moo fi ne waaw maa ngi leen